nous ci tey les di visiter ay chantier Promoville en tant que tel waye avons ñew di visiter ay réalisation wu Promoville yu am solo ci Saint-Louis Promoville def na fi luy tolok 15 km. yo xamne tali la 15 kilomètres yo xamne amna assainissement 15 km. yo xamne éclairage public olof yi dañu faral de wax ku mënul leble war fay bor président Macky Sall li wax la population sénégalaise ak fuñu man di nek ci réew nañu sentir que ñi ci réew mi la ñu mu jël initiative yu melne. PUDC ne monde la la leen dénk lu piste lu wàllug électrification rurale lu wàllu lu mel ndox ak lu mel nonu mu ne Puma yeen demal len ma ci frontière képp koo xam ne sénégalais nga tëkk ci frontières yi nekk ci nga sentir sa bopp ci li réew mi di def mu jël Promoville nag mu ne Promoville demal ma ci ville yi parce que ville yi yàgg nan lool waaye am na lu bari loo xam ne soxla la ci ville yi te amu fa kon xoolal ma foo ma mën a defarale ay tali gox i goxaat yoo xam ne amuñuy tali nga dugalal ma foofu tali waaye bu yem ci tali fexeel ba ndox mi nga xam ne su nawetee day lor doomu aadama yi ñom nañu am canalisation au pluviale waye bu yem ci lolu am na quartier yo xamné samba boy yi dañ fay def naka sudul noonu kon defal ma lumière ba nga xamné magat ci bopam su réré wala ki mën na génn doxantu dara da ko jot lolu mom mo ci gattal li nga xamné Promoville am na ko ci mission fini nii ci Saint-Louis mën na né luy tolok 7 milliards def nañ ko ci biir dëkk bi nam li dess bari na waaye nag damay ne nit na ne man ñamuma waaye doylu moom moom am na ko ko moomul ni ko waa Saint-Louis amee noonu la ko commune yu bari wala ville yu bari di wootee di soxlaa kon li ñu wóor ba wóor mooy que ne lépp lu ñu mën a góor góorlu pour continuer ci procédure bi ñu nekk ak Promoville dinañ ko def liñ ci rafetlu nag surtout mooy li mu nekk programme boo xam ne def a ñëw ci mise en œuvre bi population ci sen bop dañ ko téyel sen bop ñaarel bop doli li nga xam commencé nañ ko def ci infrastructure mu bari mu new population yi commencé nañ ko entreteniral sen bop kon déjà lolu luñu ñu rafetlu la lolu acte citoyen la lolu acte patriote la donc ci fann woowu mënuñu lu dul encourager encore la population ci fann boobu benen bi ñew nañu fi tay aussi war fi taxawal li nga xam mom moy case foyer des femmes moy eut bo xamné jigéen ñi dinañ fi man di ñëw di liggéey di daan seen doole di yóbbuwaat seen kër waaye aussi ñi nga xam ne yàlla may na leen expérience dinañ fi man former suñu ay ndaw rawatina suñu ay ndaw yu jigéen ci couture ci sérigraphie ci transformation fruits et légumes et pourquoi pas même ci transformation fruits de mer comme que ñoo ngi ndar kon loolu lépp damay ne sant la la waaye aussi woné encore une fois de plus li président wax que né dafa bëgg participer ci xex ndol ci jigen nekul li nit ñi di wax wax kessé